yéen ñëpp yéen a ngi tooy lépp bu ngeen ko yéegee bu ko yéegul ndax boo jógee ci boutique bi jënd boîte almet am na 18 pour cent TVA boo xam ne moom day dem ci budget état bi. fi ngeen déggee ñu ne budget mat na 7000 milliards kenn ku nekk seen na xam ni xaalisam mi ngi ci du xaalisu Macky Sall te du doon xaalisu Diomaye Faye bu nekkee président mooy xaalisu askan wi. ñaareel bi nga mën a financer sa sa programme public. mooy li nga xam ne da koy jëlee ci bor boobu nag moo la mujjee ci ci levier ci jëfandikukaay mooy li ngay dem lebi Sénégal nag dañoo inversé mbir mooy dañoo lebal lebal ba UEMOA nee na war ñoo dépassé taux d'endettement 70 pour cent Sénégal dépassé na donc boobu war mujjee ci chaîne bi ñetteel mooy sa koppar sa monnaie nit ñi xamuñu ni monnaie du rek billet bi nga yor. sànq ba léegi àddi yaa ngi ñëw jox nañ ma fi 10 jox nañ ma fi 5 jox nañ nit ñi loolu la xam ci monnaie waaye monnaie instrument levier la de politique publique et de financement ni muy doxee mooy da ngay jëflanteeg àdduna yëpp koppar bi nga am valeur bi mu ak ni mu méngoog sa koom-koom sa économie moo lay permettre ngay ajuster wala ngay réajuster sa économie. li tax nag nit ñi sonn mooy dañoo am koppar boo xam ne moomuñu ko. dañ koo animé dañ koo lëkkale ak euh, Europe te Europe dafa da bokk ci zone économie yi gën a am doole ci àdduna ñi ñu nekk zone économique yi gën a néew doole ci àdduna moom tax suñuy jënd ci biti suñuy importé suñu mënee baax na trop waaye suñuy exporté suñu mënee baaxul te réew mu mel noonu rek day am li ñuy wax balance commerciale déficitaire mooy lépp li ngay def da nga koy jëlee bitim réew sa mbay du dox sa càmm du dox sa industrie du dox sa artisanat du dox parce que lépp da nga koy jëlee ci biti moo tax moo leen di am solo moo tax candidat Bassirou Diomaye tey wax ci programme ne li nga xam ne ñëpp dañ koo ragal parce que jàpp nañ ni ku ko wax tubaab yi xeex la parce que tubaab yi li leen arrangé mooy ñu téye suñu mole ñun ñu ne ñun Pastef nag ngay am sañ-sañu taxaw ak Sénégalais yi ne leen mole bi dinañ ci wax delloo si ko fii ci Kédougou ndax moo ko gën a symboliser mooy di la yàlla sedd ci ci ci ci ressource naturelle. muy nekk ci biir géej gi. jën yeeg si pare yeeg ñoom seen. li koy waaye ressource halieutique. xam ne mun na nekk ci géej gi mun na nekk ci jéeri ji. muy pétrole. gaz a ngi fi Kédougou lépp a ngi fi. loolu bokk na ci levier yu am solo yoo xam ne mën na tax nga financer sa économie su dee gérer ko bu baax su dee négocier contrat ni nga ko war ba nga am ci li nga war a am. waaye waa Kédougou fii la njëkk tudd or Kédougou est-ce que gis na boppam ci or. ay milliards et milliards et milliards la génne chaque année fii ci Kédougou te dëkk yu koy génne yeneen i yi fii lay sàmm ak courant loolu nag ñu ngi amee ci Kédougou loolu la amee ci jaay nañu suñu géej gi yëpp waaye li ñuy jëlee fii di ko fi yóbbu chaque jour ngeen gis camion yi di ay milliards yu dul jeex te tey soo ñëwee Kédougou da nga naan est-ce que maa ngi Sénégal je respecte Kédougou am ngeen liggéey. naa ne yéen bokk ci rek donc vous êtes une jeunesse consciente waaye naa jeunes yu bëri léegi ñàkk liggéey bi ñàkk xëy bi moo tax suñu xëyee suba ba ngoon jot yënga ca naar ba di fonce kon kon loolu dafa di pàcc bu am solo suñu programme ma ñëwoon fii daje fii ci rond-point bu wax ak yéen waa Kédougou léeg-léeg ñun dañu am lu ñu métti mooy région yi nga xam ne ñoom la nguur gi gën a ñoom ñooy voté nguur gi loolu man mënu ma comprendre problème bi ñoom la nguur gi gën a sàggane sooy jël tey Sénégal néew ma ñu tollale parce que ñun ñëpp la ñu waaye soo jëlee économie Sénégal téeméer boo jël juróom-ñett fukk mi ngi diggante Ndakaaru Thiès ba Touba bu baax la parce que ay dëkk yu am solo moo ne Ndakaaru Thiès ak Touba ñoom ñooy voté toujours contre le pouvoir dañoo kédu lañ fi def ci suñu budget national nekkoon naa ak Moustapha Guirassy yi assemblée nationale saa yu jëlee parole day ñaxtu Kédougou ñaxtu Kédougou daanaka dama ko wax saa yi delloo léeg-léeg day laal problème nationaux yi parce que y' a pas que danaan kaas a kaas a kaas ba sonn soo jëlee bit ci Sénégal la ñu andi Kédougou mu bokk benn ci quatorze régions yi matul cinq pour cent du budget national et moo nem élection 2019 ñoom la woteel élection locale yi Kédougou ñoom la woteel élection législative yi Kédougou ñoom la woteel ak yéen ñun nag yéen dëgg moo ñu lii ay frère lañu ñoo bokk même famille ñun néew ñu ay politiciens suñu seen kanam yéen dañoo am cofeel bu dul jeex ci pour askanu Sénégal moo tax suñu ñëwee taxaw seen kanam dañuy waxtaan waxtaanu dëgg bi entre ñun parce que su ma leen politicien damay ñëw wax leen lu neex rek dem sama yoon mais man mënu ma comprendre. surtout région yi nga xam ne ñoom la ñu gën a sàggane ci Sénégal ñoom ñooy continuer di voter pour nguur gi ba bëgg xam nag ndax Kédougou ndax ren de xam ngeen ko ñàkk nañ ko xam day xam naa ne ñëpp xam ngeen est-ce que xam ngeen ni dimanche prochain changement dina am ci réew mi incha allah question mooy est-ce que Kédougou dina bokk ci ñuy cité ci njëkk a porter changement bi. yàlla est-ce que Kédougou dañ koy cité ci ñi nga xam ne ba ñuy soppi Sénégal ñoom dañoo téyewoon seen loxo. loolu rek mooy question bi man nag gëm naa ni ren jii Kédougou des ka man lan laa gëm man kon li may facilité loolu nag mooy dem jël carte électeur yi benn. ndax ba léegi préfecture yi carte yaa nga fa ngir yàlla danañ jël carte électeur yi bu jaay jàpp ni élection la pour fal Diomaye Faye déedéet élection la pour changer le sort de chacun et de chacune d'entre nous et durablement et définitivement kon dem leen ngeen jëli carte yi ñaareel bi quatre jours wala cinq jours yi des ci campagne bi su ngeen fi jógee genn ku nekk nga dugg ci koñ yi dugg ci kër yi dem def porte à porte dem wax ak population yi ñetteel bi mooy dimanche prochain surtout la jeunesse sénégalaise pour la jeunesse consciente yéen ñi nga xam ne su 45 degré yéen a ngi taxaw bi ñàkk tooy xepp ak wéeru koor dafa ne tubaab dafa ne il faut le mooy ku pour mu ne lii ngeen def nii ci weeru koor ak ci naaj ngeen daw ay kilomètres ñëw taxaw fi ci rond-point ku mën lii war na mën a xëy dimanche 6 heures du matin dem taxaw bureau de vote bokk ci njëkk a sànni seen ba nga xam ne à midi à midi mbiri leer na nañu. ñetteel bi nag xam nga réew ndaw moo koy changé islam bi mu ñëwee. bi ci ndaw ñu commencé dugg jëm di changé loolu kenn gëmloo ni yéen da ngeen war a nekk ni rek toog bàyyi réew mi ak mag ñi yàgg nañoo bàyyi réew mi ak mag ñi lan mooy résultat bi mag ñi baax nañ ci réew mi lool ñi ci baax ci ñoom seen loxo set te bëri ñu nekk ak ñun tey ils ont leur place à nos côtés réew ndaw moo koy changé yonent bu yàlla mos a yónni en tout cas ci ñoom ban âge la am na sax moins de 40 ans